Ah, ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala ngaa seetaan vidéo bi te bës cloche bi bu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi. mbokk jullit yi ñi ngi doore suñu kàddu ci turu borom bi subhanahu wa moom mi nga xam ni lu ñu doore turam yi mu barkeel ko ñi ngi làqu tamit ci moom di muslu ci moom di ko ñaan mu muccal ñu ci iblis mi nga xam ne mooy yàqkatu jëf yi waaye di ko sant itam bim ñu defee ñu nekk nit di ko sant bim ñu yónnee yonent bi nga xam ni moo ñëw génn ñu ci lëndëm indi ñu ci leer di ko delloo njukkal ci boole gi ñu boole ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi xatta tarda julli sëlmal ñaanal suñu sang bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi dotti xéewali ci kawam mu yokk ko moom ak ñi nga xam ni ñoom la àndaloon dajoon lu méttee métti ci mission bu rëy bi dajoon ay jafe-jafe ci lii nga xam ni moo ubbi dënn yi leeral xel yi ba nit xam fan lay teg tànkam te moom mooy diine islaam ñi nga xam ni ñoo ko accompagné woon ànd ak moom itam ñu ngi leen di ñaanal borom bi subhanahu wa taala sëmbaxtal yiw yi ci seen kaw ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam nuyu bi nga xam ne mooy nuyoo waa waa aljanna nuyoo bi nga xam ne bu nit xamoon li muy firi boo rombee nit doo ko wax bonjour bu dee ngoon doo ko wax bonsoir mais danga ko naan asalaamualeykum yal na jàmm yàlla nekk ci yow ñu ngi leen koy nuyu di leen ñaanal jàmm xéewal ak taw féex yàlla defal leen ko duñ fi yemale ñaan gi dañuy bëgg mu law ci àdduna bi yépp waaye lawaale ci dëkk ñi nga xam ne ñoo ñu wër waaye senegal gi nga xam ni yàlla moo dogal ñu dëkk fi yàlla def fi jàmm ñu ngi koy ñaan borom bi subhanahu wa taala di feeñal suñu mbégte suñu kontaante ci occasion tuyaaba bi ngeen ñu may tuyaaba nit daf koy fàggul boppam nit dina ko may nit nit day fàggul boppam tuyaaba mais jullit dina may moroomu jullitam pour mu mën a am tuyaaba te lii ci la bokk kon ñu ngi leen ciy gërëm yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen taxaw macha allah nek ay jeune yo xamne da ngeen bëgg a ràññeeku ci seen diiné ñu ngi leen di ñaanal seen initiative yi ngeen xamne mi ngi nek seen kanam li ngeen di jël diko doxal yalla nako yalla barkel barkeel da ngeen egg fi ngeen bëgg yegg ndax lu taxaw ay ndaw ñoko taxawal tem bi ngeen ñu sant pour ñu jëm ko waxtane tem bi dañ mako envoyer audio ma ne sama borom kër déglul ma thème bii mu déglu ko reetaan ne ma waxtaan bu yomb la <laughs> man ko ah, papa mu ne ma ah, waxtaan bu yomb la nee na nga waxal leen fan lañ mën a féexale seen xol ma ne ko islaam moo ñëw leeral dana yi féexal xol yi bi yàlla tànnee suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu laataa ñëw dafa fekk xol yi xat nit xamul woon sax lan mooy féexlu ndax boobu ñoom lañ daan tuddee féexlu nekkul woon féexlu mais notaate la tuddoon ak contre nature ndax contre nature mooy nit di def loo xam ni bokkul ak tobiaam natiiram natiiram mooy dund dund goo xam ni bokkul ak bi la yàlla sant benn jigéen dafa bind benn livre tuddee ko ay na saada di laaj moom milliardaire la mais daal dafa bëgg am bonheur te dañuy wax ni doon na dugg sax ci benn hôtel fanaan fa xëy di fay ñu ne ko fii yow yaa ko moom ndax bari alal bërëbu fokkaay yi miinoon nañ ko mais bi mu duggee ci diine mu laajal ñi nga xam ni nekkuñu ci diina ay na saada nit fan lay retrouver boppam nit fan lay amee féexu xol nit fan lay yégee ni moom am na bonheur mel ni benn question la boo xam ne daf ko posé mais mu tontu boppam ne ci islam la nit di amee li nga xam ni moom mooy bonheur saada bu ko nit bëggee am day topp ligne bi nga xam ni moom la ko yàlla rëddal loo am lu mu bari bari islam moo lay organiser nan nga koy gérer ba doo am problème loo xam lu mu yaatu yaatu islam moo la koy organiser ba doo maam kon diine moom dafa ñëw pour régler lépp yamul rek ci julli kese yamul ci kooru kese yamul ci jàngal ñu naka la ñuy génnee azaka ci ñi ko man waaye dafa jàngal doomu aadama benn marxala bu am solo boo xam ne dafa nekk ci diggante ñaari lompoñ muy diggante tufuula ak shayxuuxa loolu moom mooy ashabab jeunesse daa nekk ci diggante ñaar muy ki ndaw xale bu ndaw bi nga xam ni juddu na yàlla dëxañ ci moom xel munu koo utiliser def ci moom doole mënu koo génnee mu dem ba am fu mu toll mu commencé di génn ndànk par ndànk mu dem bu passé état boobu day dugg ci beneen marxala mooy shayquuqa dem nag ba commencé lim mënoon ci jamono boobu mu commencé di ko ñàkk defe naa loolu la ñuy waxtaane tey foofu la ñuy concentré suñu waxtaan mooy ndaw ci boppam taxawaayam kan mooy ndaw pour waxtaan wi ñu mën a yegg ci li ngeen ñu sant pour wax ndaw fan lay mën a féexalee xolam il faut loolu moom moo koy jiitu dañuy dellu rek ci alquran lay taay la sunu waxtaan ñaari xissa xissa bu njëkk bi yéen ñëpp xam ngeen ko mooy asxaabul kahfi xam nga yàlla ni muy waxe bokkul ak ñun ni ñuy waxe ndax moom mooy allaamul ulum bi muy nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu commencé sax moom moo neex am solo yàlla dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay problème rek wër ko alquran miracle la pour mu soulager wu moo tax bu mu musaan ñëw ci moom ba wàccee alquran ba pare bu koy wàccee day yëg coono mais su paree day féex ndax loolu mooy li nga xam ni moom mooy système de vie bi nga xam ne nit foofu la war a mën a tënku muy alquran borom bi subhanahu wa taala ne ko comme bi nga ñëwee ay ndaw ñoo la jàppale te yow itam ndaw nga di ko yàlla di yónnee mi nga am quarante ans 40 ans dañuy wax ni moom mooy digg ndaw donte léegi nag ku am 40 ans mère waa mais 40 ans paa ngay dégg mais 40 ans moom mooy digg ndaw dañuy wax ni ndaw li bu nekkee xale ba ba muy am 15 ans jàpp 20 ans xelam ak yaramam dañuy ànd di dem mais su amee 20 ans yaram bi dafay arrêté xel mi commencé di continuer diggante boobu nag. mooy diggante bi am solo moo tax yàlla def ko tudd ci alquran lu baree bari moo tax bi muy jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asxaabul kahfi lan la yàlla wax innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda fitya yàlla ne ko kaay ma nettali la ay ndaw yoo xam ne ñoo fi jiitu woon am luñ doon dund loo xam ni ca lañ juddu woon ci jaamu xërëm ci njaalo ci fo ci naan sàngara ak ëpp sa moroom doole woon ko ko mais ñoom ñu dem ba xam ni système bi bii normal lii du lu pour tënkal la xisa bi buur ba fa nekkoon te xiyaanuus moo woote woon benn ndaje boo xam ni par annuel la ko doon def ñoom ay ndaw lañu ñu gis ni journée boobu li fay am mooy fecc way góor ñi tëdd jigéen ñi ku nekk def du la neex après nga ñibbi bi ci gën a metti mooy chaque année dañ doon jël benn xale bu jigéen rayal ko seen yàlla yooyu xale bu jigéen boo xam ne mosul sëy ku musul jaxasoo ak góor ñu rayal ko seen yàlla yi mu nekk genre neexal ñu neexale ko ko bu tasee ñu ñibbi ñu xool xam ne lii nekkul lu jëm kër est-ce que loolu moom moo tax yàlla bind leen ñu ne kenn moo njëkk a nekk ci programme bi di xool ni muy déroulé kenn roccee ko dem toog ci benn suufu garab mu toog ba mu yàgg keneen fekk ko fa ba ñu nekk mbooloo borom xam-xam yi dañoo wuute ci nañu toll alxuraan jàngal nañu ko mais lu mën a am ci li ñuy waxtaane tey borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi neen ndaw ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow bu ñu am benn problème ndax am na ndaw yu fi jiitu woon yëg ne na yëg ne àdduna ay ndaw ñoo koy doxal àdduna mënul dem sans loxoy ndaw moo tax yàlla ku mës a tànn du la yónni rek ndaw ngay doon fa ma lamma balaga ashuddahu aataynaahu hukman wa ilma mooy am na foo xam ni xale bi su fa tolloo léeg-léeg mu nax sax papaam te pourtant papaam tolloon na noonu lan moo tax mu mën koo tegal diil génn ci mooy fa mu toll moo tax am na foo xam ne bu fa tolloo léeg-léeg mu nax yaayam et pourtant yaayam toll woon na ni moom mais fa mu toll moo tax mu mën a teg yaayam dil ba génn ci tat tat du mujj fenn des fois xam nga xale yi ñoo gën a muus muus goo xam ne nag muusu yeewu teg nasaraan la boo xam ne da koo tënk ci ay matériel tënk ko ci ay objet yoo xam ne mooy mëdd xelu xale bi mu yaakaar ne loolu mooy àdduna te fekk na àdduna moom sori na loolu lool moo tax ñu bëri dañuy noyé ci biir jàpp ne ni la présenté ci ay ndaw yoo xam ne ay franc ñoo leen di former ay juif ñoo leen di former ndaw li ñàkk xel ci beneen côté am xel ci caay-caay day def ni kooku war na koo mën a mat idole te fekk mu ngi juum jamono bu am li am tey amoon na ci jamono yi paase woon bain de minuit yi ngeen di dégg nii aka amoon yu gënoon a pire moo gënoon am islam moo ñëw islamiser ko defar yëpp rafet defar ko ba mu ba normal moo tax ñoom seen xew boobu lu nekk moo fa daan am seen dajaloo boobu bi ñu génnee dajaloo xalaat ni li fi nekk war nañ koo changer moo tax réew ay màgget duñ ko soppi dañuy toog du joxe xalaat mais ay ndaw ñoom ñoo koy soppi mag am na foo xam ne bu fa tollooy am na xel mag mat naa bàyyi ci réew mais ban façon mag mag mu am xel mag mu jege boroomam mag du yàlla mais yàgg na ak yàlla kon taxyiir bi nga xam ne sax ñun bëgg nañ ko suñu réew ku yaakaar ne mag moo ko fiy def dangay nax sa bopp de da ngay jàpp ni man mën naa changer système bi ñuy dund tey muy sunu jiit yi dañoo am ñu leen jiite ñu leen di orienté ñu leen di xamal di leen waxal te ñu ay franc lañ pour mu leer soo naan ay lii lañ ay lii ay franc ñoo leen jiite. moo tax ku ci nekk rek da ngay nekk franc-maçon li gën a bari moo tax sànq même li Mansour doon wax ba ci média yi des fois ñi koy jiite léeg-léeg ay franc-maçon la ñuy doon ay borom alal lañ yooyu la ñuy doon yoo xam ne dañu nekk ay franc-maçon. yow miy dund sa diine nag soo gëmul sa diine et puis gëm sa bopp ndax nit moom œuvre yàlla la ñoom ñoo lay orienté fu la neex day mel ni bët ñoo yor sa bët fu la neex ngay xool loolu nag ñun moom duñ ko nangu ndax alaylu moom la mahma taala laa budda min tuluin fajri waaye wal umru mahma taala laa budda min duxulil xabri dund moom lu mu yàgg-yàgg di nga teew sa kanamu borom te actuellement toll nañ foo xam ne ku ñu sul fàtte nañ la lu dul ñu baax di la yónnee ay ñaan boo jëlee sa diina jaay ko jënd ko poyetu àdduna xamoo fay mujje bu dee alal la bu dee oto la du ko jar bu dee kër guñ lay dëkkal la du ko jar bu dee benn compte banque la boo faatoo doo ko yóbbaale kon lu dul diine diine moom moo ko gën borom bi subhanahu wa li tax ma indi aaye bi pour ubbeeku suñu waxtaan mooy dafa am loo xam ni ndaw moo koy jëlal boppam yàlla fekk si ko ca moo tax suñu benn magu réew doon na wax naan sabab lu leen te bu leen di sukkandikoo yëngu yi def naa ko liggéeyul doo fayeeku de ñom bañ yëgee ni amna lu xew seen dëkk neexu leen dañoo juk pour pour war koo mën a changer kon changement dafay ànd ak tadhiya dafay ànd ak azima day ànd ak sacrifice ak li nga xam ne moom mooy dogu lañ doon dund neexoon na lool ci ñoom mais xel mi leen dugg te ñu nekk ay ndaw li tax borom bi subhanahu wa taala bind ko dugal ko ci saar bi nga xam ne saar la bu am solo muy suratul kahf tuddee leen ko nga xam ne yonent bi day wax ni boo ko jàngee àjjuma ba àjjuma bi du ñëw dafay nekk leer sa diggante àjjuma bi ak àjjuma bi nga xam ne moom ngay dëgmal si aay yi ci nekk dafa am solo waaye surtout lim ñu leeralal fii mu ne ay ndaw lañu yoo xam ne dañoo gëmoon seen borom gëm gi xol du féex nit ku nekk na jàpp ni xol du nekk loo xam dafay nekk faraar amul dara lu ci nekk loolu mënta nekk xol dafay am yàllaay kese mu am yu mu àndal teg la ci njub nga mën a dem wala mu am seytaane piir am yu ma àndal teg la ci safaan tamit nga mën a dem te doo yegg fi nga jëm mais xol boo xam ni amul dara yàlla bindeewul noonu xol daa bind xol pour am yoo xam ni moo fay nekk moo tax boo xoolee cëru doomu aadama ay feewu doomu aadama ay jëfinam lépp yàlla daf ko branché ci xol dafa mel ni mooy compteur soo meree foo ko yëge ci xol soo kontaanee foo ko yëge ci xol li ngay gëm fan la nekk ci xol sa bëgg-bëgg fan la nekk ci xol innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yàlla nee na dañoo gëmoon seen boroom xam ni li dund contre nature la man tam ma jàppale leen ci loolu inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla mënul fekk ay nit liggéeyoo daal doo fa yeeku ay nit yoo xam ne jéemuñu dara yàlla du taw wurus du taw xaalis dafa lay wax liggéeyal pour nga mën a jëriñu kon ñoom dañoo jug dañoo jug léeg-léeg dégg xale bu góor bi di wax naan xale bi dafa pare mais ñun dañu soxla ay ndaw yu pare ban façon pare mooy pare taxawu seen diine ci côté bu nekk pare xam ni islaam lu dul moom islaam moo ko gën pare xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mihna bi mu yoroon muy métier bi mu yore woon nga xam ne mooy jàng ak jàngale xam ak xamale ak mën a def àdduna mu nekk loo xam dafay am stabilité ba nit mën a dund am ak xam te du am problème soo ko bëggee ay nelaw du la ko may boo ci tolloo am na loo xam ne doo ko mënoo koo dund sax benn boroom xam-xam dañ ko laaj ci jeunesse mu ne ndaw jamono bi ñu toll ñaar kese la ñu ne ko mooy ban ak ban mu ne ndaw lu góor lu jigéen lay visé ak xaalis ndaw lu jigéen lu góor lay visé ak matériel tey loolu la ñuy dund ak wuteeg lol dina fen ci waxtan bi ndaw yi fi jitu won sen taxaway bi nga xamne dañ ko taxawoon ba pourtant don nañ fo comme ni ko waxe léegi mais ban façon fo borom bi subhanahu wa taala ne warabatna ala qulubihim is qaamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idan satata taxawaay bi laa ci soxla li tax ma indi aay bi mooy taxawaay bi laa ci soxla dañoo jugoon taxaw ñun fii Sénégal suñu habitude mooy dañoo mën a werante mais wax rek muy dem daa war a jeex isqaam dañoo taxaw taxaw temm ci seen esprit dañ ko defar xam ne xalaat dañ amoon bu njëkk ba dañ ko war a changer ak beneen xalaat muy yàlla moo fi nekk dañoo taxaw temm ci la ñoom système bi am ci seen dëkk ñoom ñoo ko mën a changé ñu changé système bi nga xam ni bëggoon nañ ko dund ñoom ba changé waale sax réew ma moo tax yàlla jàppale leen ñu xam ni benn yàlla rek moo fi nekk mooy ci moom asamaan ak suuf kenn waru koo boole ak dara te gis nañ ni boobu ñu ngi jaamu ay xërëm tey ñun jànguñu xërëm mais màdd la ñuy jaamu matériel tey surtout bii tay ku ci am doom bu jigéen boo nëbbee portable am wallahi day feebar tay ku ci am doom bu góor bu jëlee portable am day am problème paaka ñaari boor la am na étude yoo xam ne mënoo ko xool lu dul fii nga koy jëlee doo ko duñ la ko bindal ci tableau bi ci école bi maître bi du la ko wax du la ko jàngal da ngay dem def say recherche am na solo mais est-ce que jumtukaay bi ñun ñi ko defar tubaab bi sax ñun niñ koy utiliser ñoom duñ ko utiliser noonu deux suñu mag bu nekkoon Australie Bécaye la tuddoon dafa génn àdduna dafa woo sama papa na ko papa est-ce que xam nga ni téléphone day joxe cancer 2002 ba temps yi lañ commencé gisaat gisaat ci réseaux sociaux yi ñuy wax 30 minutes rek boo ko yoree portable wuyu ko ci ni muy def ci yow ñun tey gis nga chaque jour ñu indil ñu bu bees bu dee def ñuy jëriñ baax na mais WhatsApp. xale bu góor bi xale bu jigéen bi rek kalaam faari wax yu ñàkk fayda ay Instagram ay yoo xam ni am na loo xam ne mun ta ñàkk mais am na loo xam ne mun naa ñàkk yenn application yoo xam ne dañ la koy defal ba pare yow ñu ngi lay raket te bàyyiwuloo ci xel ñi nga xam ne ñoo fi indi téléphone li ñuy gañe ci ay millions ay milliards kenn xam na nu mu toll man rek chaque jour bi fi bi ma yor chaque jour damay jënd crédit 1000 francs weer bi day ñaata la ak bi ñaata la boo koy jëriñoo ci beneen côté sax amul benn problème li ma ci jublu rek mooy ñun bëgg nañu am taxyiir fii ci suñu réew il faut ñu jug taxaw taxawaayu ndaw nuróowul ak taxawaayu mag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koroog bi mu toogee ak saxaaba yi di leen waxtaanal aljanna saxaaba yi tiit kontaan ndax fu mu waxee aljanna dina wax safara mu dalale seen xal seen xel juróom-ñaar ñoo xam ne ëllëg yowmal xiyaama aljana mooy seen kër xam ngeen daf ci bokkoon wa shaabun nashaa fi ibadati rabbi ndaw loo xam ne daa bàyyi lépp dëgmal boroomam xam ni àdduna ay ndaw ñoo koy tabax tey ubbi entreprise am buy def publicité ay ndaw lay wax ku am âge bii ay 25 ans 30 ans jëm kaw mais ku am 50 ans jëm kaw doo ko dégg ndaw li muy représenté moom moo rëy ay bi su ko indee xam ngeen lu tax mbokk yi mooy yàlla bi mu sitee ay ndaw daa cité seen taxawaay mooy taxawaay bi da ngay dugg yow sa roq mën a kanam xool est ce que man ni may dundee nii man en tant que ndaw est ce que maa ngi contribuer ci sama réew pour mu am changement bi ñu bëgg réew am ko wala déet day nekk benn question boo xam ne ku nekk daf koy posé boppam nekk ndaw rek jàpp ni doo faatu ba tax lu la neex def benn waykat nee na bari na ay ndaw yu yaakaar seen gudd fan fekk ràbb nañ seen càngaay ba teg ko ci marché bi di ko jaay wuñ ci woon xel biira ma doon metti boppam da accidenté nga yaakaar ni rek yow moom bu asamaan si di da danga koy téye ay ndaw ñoo fi nekkoon démb yu pare ñooñu ñoo pare woon dañu jël ay moo def ko ay jeu te duñ ci bàyyi xel xale bi dafa pare ki pare mooy ki pare taxawu diineem xam ni yàlla rek moo fi nekk ñoom démb li ñu doon jaamu mooy ay yàlla ñun tey dañuy jaamu portable boo ko ñàkkee am nga problème dañuy jaamu xaalis léeg nga triandé léeg-léeg nga fen dañuy jaamu jigéen léeg-léeg xale bu jigéen bi jaral la nga abandonné say way jur dañuy jaamu góor léeg-léeg xale bu góor bi ñu tere la ko nga ne tey nga dee temps yi rek lañuy wax benn xale bu jigéen bu xaru ki mu doon bëgganteel dafa nekk géwél biñ demee ba ci jàkk bi jouru maye bi mbokk yu ñëw ndekete seen geewlu juddu la xoma ma seen maam yu fa tase ñu nekk di xamante ndek ndekete ñoy seen geewlu juddu ñu annulé mariage bi xale bu jigen bu duggu néegam naan ay comprimé dañu ñëw rek fekk mu faatu est-ce que su amone taqwa est-ce que su xamone likoy xaar ci aduna est est-ce que su yegol ay responsabilité dina xaru noonu bazar de dundam ndax góor yii buñ mënoon a wax di nga ci dégg boo xam ne dina wax musiba naaru laay yu doy waar la ci xale yi di def léegi gis nga réew xam nga lu koy doxal jàng émergence bi ñuy wax jàng ak xel mu sell moo koy defar waaye li koy tingoom mooy diine adduna bi mu sosoo ba tey ñi ko yor ku nekk xam nañ ni <laughs> ñu ay nitu diine mais fan lañ jëm ak ñun chaque jour lu gën a piir la ñuy dund mooy soo seetloo année bi nga génn mooy gën a neex année bi ñëw problème yu bari musiba yu bëri dee yu bari yu bëri bëree bëri lan moo tax li ñu waroon def dañ koo defetul léegi li ñu santoon dañ koo bàyyi moo tax ndaw yi fàtte nañ ni benn bindkat dafa bindoon lu am solo jëmale ko ci réew yi nga xam ni dañ leen di tuddee sous-développé man damay wax ni xamna ñun sénégalais ñun ñun sénégalais ñun lañ ko waxoon ya qawmu la tatakallamu innal kalama muharram namu wala tastayqizu ma faza illa nuwamu wa taaxaru an kulli ma yahdi bi an tataqaddamu wa da'u tafakkura janiban fashar bi an tatafakkaru sastin ñing lay ziar sas ñing lay nuyu bu baax benn kat dafa bind ne e bu len waxati ñun ñoo leen di waxal tey ndaw li fii référence bi muy xool ba ci ay waxam mooy franc bi benn jigéen bi mu tànn e, teg ko ci kanamam ne ko xoolal kii nag léeg mu nekk góor léeg-léeg mu nekk jigéen te léegi dañ dañ koy jaar ci li nga xam ne moom mooy musique gis benn xale bu góor boo xam ni musicien la dañ koy jël ngemb ko ci moom ay doom la xale bu jigéen bi toog seen kër di dégg moom ci moom lay jàngee ay kàddu yu muy wax moo tax chaque jour ngeen dégg wax joo xa ne suñuy maam xamuñu ko woon fii ngay gis ki wax ni ba mu yàgg xam ne ko xanaa dee nga fan la jëm na góore na ji na góore bu la neexee nga jigéen na ko góor mi nga xam ne en tant que góor kuñ doon wax góor jigéen bu njëkk ba da ngay dar sa nopp da ngay tiit mais tey nekk góor jigéen dafa mel ni amul sax bàkkaar te pourtant dafay jóge ci kàddu gi nga xam ne dañ la koy jox ndànk rasul fikri yi lay doon indi la benn film boo xam ne góor jigéen daf cee nekk exposé la koo xam ne dañ koo xewal moom moo xew xam ngeen temps yi ki xew xam ngeen ko Rihanna nga nam franc-maçon maçon ni moo leen jox alal di ñu am booy xool seeni clip safara yeeg bët yeeg léeg-léeg ngis xale bu góor bu photo def nii loxo yeeg def ay façon façon franc-maçon te doo ci bàyyi xel léeg-léeg jigéen bi def ko yii lañ lay indi exposé la ko jox la ko nga def ni yaa ci nekk soo solul seen col xewlo so waxul sen waxin xewlo so doxalul ni ñi doxale soo ko doxalewul xewloo mais rew mu fan la jëm rew mi actuellement Sénégal bu demee ba ñuy wax ni tey franc-maçon nga xam da nga ko daan dégg benn benn te ñu te kenn du ko sané wax ci kaw de tey bu ñu demee ba osé di fi def sen réunion ngeen xam ni nag fan lañ jëm ñun tey ay nan ma fat te li ci gën a métti mooy ndaw li ñuy jël ndaw li nga xam ni ndaw ak xelam ndaw ak dooleem ndaw am ak ak dogoom ndaw ak su buggee dara ni nga xam ne noonu la cay demee kooku la ñuy jël formé ko teg ko sa kanam nga yaakaar ne kii mooy sa royukaay ak a métti ak doy waar ndax la xaalis dafa des fois damay ne nit ñi am na ñoo xam ne duñu xalaat yoo xamuloo kañ ngay dee te xaalis bi sooy dem doo ko yóbbaale nga mën a def ay mbir yoo xam ni mais nag xam nga comme dañuy wax ni ñoom.

sen morom góor lañu soxla ñu di ci amé nak alal yo xamné ne kenn xamul nu mu toll ay ndaw ñoy taxaw pour mëna a li xew ci sen réew motax ndaw yi nañu yëgaat sen responsabilité taxaw débat yi débat rek bàyyi noonu du ko changé de daf lay jaral né naan da fay ànd ak ñaar azima ak tadhiya da nga ci am dogu ba pare am ci mu jaral na sa lépp dal so déwé da ngay dem aljanna benen ndaw boo xam ne moom exemple góor ñépp la def naa xam ngeen ko yonent yàlla yusuf alayhi salaam tey sa maam daf doon wax benn kàddu dama koy rus a wax sax ndax man góor ñi samay xarit xarit lañ daf doon wax góor yiwul buy xool jigéen lenn rek la opté ci moom waxu mag la mais nag bari na lu muy firi xam nga bu yàlla bindee bu jëlee comme ni ko français di waxee noir sur blanc bind lu ñu jël alquran bind ko ci feuille bu weex tàll bàyyi ko ci mu nekk loo xam ne signature la ilan abat aaya yi kenn du ko jàng muy romb noonu mais danga koy dégg xam nga war a waraawadat hullati hiya fii baytiha problème góor ñi la nañ ma baal très rarement la ci góor di mucc li may wax déglu leen ko bu baax jigéen bu am alal am daraja am fu ko nit ñëpp teg Zalixa ci jamono boobu dafa nekkoon princesse moo nekkoon jabaru euh, buur ci jamono boobu mais ba pare amoon taar moroom jigéenam ñëpp dañ koo ñeewoon bi mu woowee yonte yàlla yusufa alayhi salaam dugal ko néegam très rarement góor mucc ci boobu piège xanaa yàlla dimbali na mais yonte yàlla yusufa alayhi salaam taar bi nekkoon ci moom ba yaay Zaliqa mu attiré ko mu fàtte sax moo ko yaroon jigéen dafa gàtt xel moo tax jigéen li tax yàlla boolewul ñaari jigéen wala boolewul ñaari góor boole jigéen ak góor ak jigéen jigéen lu mu am am xam-xam lu mu yeewu yeewu lu mu muus muus am benn faiblesse góor surtout bu nekkee kilifaam yàlla moo ko bindee noonu noonu noonu la ko namee góor lu mu am am am daraja lu mu foor foor foor am benn faiblesse jigéen bu nekk ci moom li tax ma wax lii mooy yuusuf borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko leeral wala xat hammat bihi wa hamma biha loolu dafa leer borom xam-xam yi xurtu bi soo demee ci moom dañ koo tas dañ ni yàlla waxul ni yusuf daf ko xemme moom en tant que jigéen mais góor la dafay soxla jigéen li tax mu jiital zaliqa zaliqa moom moo woote wala xat hammat mu ne jigéen ji moo amoon moom benn teef ci moom boo xam ne la mu bëggoon bëgg na ko am ci moom mais yusuf xememul zaliqa mais góor gi mu nekk góor mooy góor dafay soxla jigéen lawla anta abulhaana rabbi dañ ko firee nu bari nee nañ dañoo wane ki nga xam ne moom mooy yàqu papaam mu gis nataalam mu ne ko laa taqrabu zina am ñu ne dafa xool ci benn bërëb gis ñu bind ko fa des fois ay taawilaat lay doon mais lu mën a am rek yàlla nee na am na lu tax lu ko empêché mais defe naa boo jàngee aay bi ba mu jeex mooy li ko empêché mooy dafa préparé woon boppam innahu min ibadinal muxlasin daa préparé woon boppam en tànk que ndaw ndaw dafay préparé boppam préparé sa bopp mooy ndax mooy sangu ba set solu boo bëggee dem ci xëb yaa ngi préparé du loolu préparé sa bopp mooy en tant man ndaw àdduna bii yàlla daf ma fee indi dama nekkoon bébé démb am fu ma tolloon mënuma dara tey may dem ba nga xam ne li papa mënoon maa ko ko dàq ci biir kër gi li yaay man maa ko ko dàq tey kon ban façon taxaw laay taxaw kon sa xel ngay utiliser pare ci wàllu mental xool sa bopp xool bu baax a baax pare ci côté yépp jigéen bu doy waar léeg-léeg góor baax lool mais jigéen yàqal ko àdduna piège ya, dañu bari te jigen dafa bari dafa dafa dafa reuy xel ñaari pexe la yalla tuddu bu shaytan ak bu jigen bu shaytan neena amul doole ndax yalla da koo teel avertir nako inna ibadi laysa laka alayhim sultan amna ño xamni mëno lo mënuloo leen dara même buñu ñu tamit dañuy rectifier waat na yalla baal yalla jéggal leen te amna na yo xamni duñ ci mësa dugg du alal du jigen du poste dara du leen ko jaral amna ño xam tam du góor du alal du dara dara du len ko jaral moy ndaw yi nga xamne dañu pare xel dañ koy utiliser motax yàlla suy wax borom xel yi lay waxal wa ma yatazakkar illa ulul alba ñi am xel la yàlla di waxal pour wan la ni ndaw ñaar yi nga xamne daf ko gëna opté légui ndax tem bi moy place yi ndaw mëna a ban façon foog dañu gis tey ak actuellement mooy foofu xale yi bu njëkk ba ñun boog ñun bañ ca tolloo ñun liñ daan fawee mooy ay palaal yi nag ooyo ay wure ay tam mais tey portable la xale yi di fawee nouvelle technologie tey yow da ngay am sa portable doo ci xam dara mais sa doom moo la ciy génnee loo xam ne yow xamoo ko ci tey façon fo bi ñu leen indil mu nekk rasul fikri boo xam ni moom dugg na sax ba ci mag ñi ndax tey kër goo dugg ñëpp dañuy concentré wu léeg-léeg nga nuyoo kenn du la dégg ku nekk nga yor bii rek nga nii non portable man daf ma jaaxal seytaane bu mag la da ngay nuyu nit léeg-léeg nga gis nit kuy dox ci mbedd bu njëkk bu soo gisee kuy dox te waxuloo kenn da nga naan day waxtu léegi kenn waxtul kenn day waxtu ma nga takk écouteur am ma ngay wuyu léegi gis koo xam day day day gesticuler sax di wax di dem di def nii dof jigi te bàyyiwu ci xel il faut xel yi ñu nàmm ko jëmale ko fi nga xam ni moom moo neex borom bi subhanahu wa taala fam itam dañ koy organiser gis nga islaam aleykum salaam yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp jàng nañ ci ne mus na tingoom bi yaay Aïcha radiallahu anha amira ñu ngi lay ziyaara Fall ñu ngi lay ziyaar Fall mus na yaay Aïcha ci benn fo boo xam ne waa xabasa ñoo doon fo seen seen cosaan la woon mu tingoom ko muy seetaan est ce que fa moomu tey mook làmb ñoo yem est ce que boobu mook marché yi ñuy organiser ñoo yem islam xam na fa de ndax nit ku nekk dafa am culture nit ku nekk dafa am dafa am loo xam ne moom mooy cosaanam li fekk mu ngi tege ci tegandaay du xaraam mais tey sunu ndaw yi ban façon fo chaque jour nga génn clip bu bees est-ce que pas moo koy génn ay xale yu ndaw tey ku nekkul animateur ci xale yi ñenn da nga gis koo xam day jàng ba am ay diplôme mais dem opté nekk animateur musique daf lay jaaxal léeg-léeg yow mi nekk ci média dañ lay indi ay demande koo xam ne jàng na man animateur laa bëgg a nekk danga naan mais kii ay naaqlu ana xelam animateur teg wayu jàmbur tàcc fecc maa ngi koy may du maa ngi koy may du est-ce que loolu liggéey la xale bu jigéen bi ne moom animatrice la bëgg a nekk kii ne moom waykat la bëgg a nekk nga commencé woy sa baat neex ñu wala am fu ñu jaar ak yow nga nangu ñu lancé la def la benn franc-maçon sa yaay du ko xam sa papa du ko xam nga nekk ci loolu commencé changer seen situation kër ñu ne sama doom tekki na la hawla wala quwwata illa billah tey nii la dund dugg ci jaayum dorog xale yu bari yàq nañ seen xol seen xel dorog jaay dorog maa bëgg tukki gis ngeen façon tukki bu nekk xale yaa ngi koy tukki tey lan lañ ci jublu damay wax ni nit buy def dara dafa war a xam lii lan laa ci jublu lan moo tax ma koy def comme nit ni muy laajee boppam lan moo tax yàlla bind ma limaza xalaqana allah lan moo tax yàlla bind doomu aadama woo malaayika yi nga xam ne ñoo ko dàq jaamu foofu ne leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa kii laa bëgg mu représenté ma ci kaw suuf sa présence ci kaw suuf lan lay wund moo tax ki bindu téere boobu masa yaani intima ilil islam defe naa fàtte yekkat la sa bokk gi nga bokk ci diine lan lay wund yow yaay kan yow en tant que yow bi yow yow ban façon ndaw nga musique drogue jigéen bu dee jigéen góor est loolu mooy fo tey foy ñii gis fii Sénégal lamb dañ koy tuddé fo lamb kenn ta wax ba mu dagan lamb kenn mënul wax ba mu dagan ki futteeku ngay gis awra te góor ñu xam awra fi mu commencé ak fu mu yam mais loolu nga koy seet nga di tok di ko sétal loolu xam ngeen ni haram nga dafa jégg dayo sax nak li gëna doy waar ci mbir mi euh, bu xaba bi nekk ci biir non seulement bokkaale yàq sa moroom am na làmb joo xam ne bi mu paasee ñu wane ñaari mbër ñu toog kenn ki def ni moroom bi doo ma dimbali nga dindi li nga def nekkatuma sax góor boobu fo est-ce que dina ko rafetlu lu nekkatul fo làmb moo tax kenn amul benn boroom xam-xam bu mën a toog layal làmb ba làmb dagan dafa xaraam football lañ doon wax gis nañ match yi ay Barça bu ñuy football day mel ni Sénégal ñoo ñoo ñoom seen joueurs yi ñooy football dafa am ñoo xam dañ koy dund. xam ngeen ginnaaw kura boobu ginnaaw bal boobu wallahi franc-maçon gis ngeen gis ngeen xaalis ban jour bi ñu jënd di ko fay ay semaine ñaata milliards semaine ñaata million <coughs> maa ngi jégalu damaa sut mais alal jooju franc-maçon yi ñoom ñoo organiser loolu. defe naa seetaankatu football yi sax xam nañ ni ginnaaw bal boobu li ca nekk mooy ay franc-maçon franc-maçon yi ñoom ñoo ñoo ñoo instauré li nga xam ne moom mooy football ñoo koy financé danay jaaxal ñu ne tey jour bi fii la nekkoon tey dem na fële ñaata lañ jënd nañ ko bañ na ba jënd sax la ñuy wax dañ ko jënd ay waay alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir ki bind mooy borom bi subhanahu wa taala jënd nit moo tax bi ñuy jaay nit ñi libi ñu koy bañ ma ne kon nañ changé waxin bi kon bu ñu waxti jour bii dañ koo jënd parce que nit bi dañuy jënd ay jaam jour bii dañ ko jënd di ko fay ah ana différence bi. dama ko waxal ne 358 millions par semaine lay am. 358 millions par semaine. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez fan lay football moom. Barça wala Real wala Real Madrid wala fan. Manchester na de Manchester semaine bii rek <laughs> nga ne xam ni dañu egg ci benn monde boo xam ne. man de fois sama waa kër dañu may mere ci seetaan man leen kenn du ko fi seetaan da ngay jaaxle da ngay xoolal dañoo muus dañuy jël sa xel moment bi nga waroon toog am leneen loo xalaat pour développer sa réew dañ la faa dugalal leneen te nag dafa dem ba nekk benn virus boo xam ne pour nga mucc ci dafay jafe. man bu làmb am na am na ay temps yoo xam ne làmb su mu saana am dama amoon ay mbër ne kii mooy sama mbër mais dafa ne moom yàgg ma woo xale yi ne ku ma dégg fi nga ne kii laa faral mais da ngay dem ba da ngay day nekk benn virus day mel ni dañ la ko pikiir nga nga ngay am palpitation bu sa mbër moom nga askanal sa bopp suy bëri mais lan moo ko fi jaar ma woo leen ne leen léegi sa bopp laay commencé ku fi faralati mbër ci kër gi di nga xam léegi làmb lay am sax danga koy fàtte parce que lépp ñun yaay yi tamit dañ ci am ay part de responsabilité. ndax buñuy wax ndaw ci ban wène la nampé kan moko tok pantal ci ban kër la gimé donta nak actuellement dañoo tollu ci jamono bo xamné la dalon no da dal ñu bari ci ñun moy da ngay yar ba sonn mais système bi mo leen di changer da ngay yar di orienter di yedd mais dafa am lu melni xalé dafa am lu leen ëpp doole dafa leen fëkk motax tax fan lañuy taxaw ak a métti ak nga yar sa njaboot ñu nekk ndaw war laa représenté ndax doom dafay représenté way juram mais ñu dem ci beneen côté wala ñu mel neneen neexul ci xol mais lu mën a am moo dina am na ay fa yoo xam ni am na fi islam du ci d'accord islam am na ay foom te dina leer ci biir waxtaan wi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ndaw moo tax mu tel ko canaliser yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ndaw li muy représenté moo tax fu mu musaana toog di waxtaan day gën a bàyyi xel ndaw yi ndax sax moom ndaw ñi ñoo ko jàppale woon bi coow li baree ñu ne màkka dafa dafa dafa dem ba nga xam ne can yi dañoo commencé cher ñi ne déedéet waa ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mustalaxul xadis ñu ne xadis bii madina la ko yonent bi waxe am ñu ne màkkatal mukarrama la ko waxe ndax boobu dem na ba nga xam ne xale yu góor yi dem nañ ba can yi cher na ci ñoom ñu am probleme lek lek nga gis ko xamne day làqatu du yërnu jigen di xol jigen bi romb genre yoyu yonent bi daf leena dajale woo ya yaa ma'shara shabab man istataa minkumul baata falyatazawwaj al baa ñi jàng arab xam nañ lan lay firi moy condition yi revenir ci yow pour nga mëna yor soxna nga wér am xel am wéru lal bi baa am xereñ boo mën a téye jigéen ndax jigéen fayaa fayaa nii rek du ko du ko du ko téye léeg-léeg mu dëbbala li njaabu mag yow njëkk ji te ko xam aka ñoo bari pexe xam suñu benn oustaz bu xaw a nay ko bëggee ndax day jël benn feuille rek ci ay français na ko ordonnance la xam pour wax la ne ay pexe mais bi daf leen a woo canaliser leen waxtaan ak ñoom ne ee eh, yéen jeunes yi lu tax waxul yaa machara rijal yaa machara shabab ee eh, ndaw yi ci toll tey soxla jigéen nit day soxla góor day soxla jigéen moo tax pour sax ñu mën a xam ni góor gi majeur na jigéen bu majeuree li koy wane mooy dafay gis mbaax mais góor bu majeur day tëdd géwént li ñuy tuddee géwént am di jëflante ak jigéen yàlla moo bindee noonu góor ak jigéen ku nekk day soxla moroomam avant islam bi ñëw amul woon organisation moo tax doom doon juddu kenn du xam kan mooy bàyyam mais islam dafa ñëw organiser ko jaare ko ci sëy sax yonent bi woo leen ne leen eh dama ni làqatu bi di def tasallul di di xool jigéen ñi di def ay façon bàyyi leen ko ku mën a denc yéen soxna na ko denc mu mel ne dañ koo laaj sang bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax fa innahu aqaddu lil basar wa axsanu lil farj day tax facteur bi gën a garaaw ci indi bàkkaar muy bët doo ko teg ci jigéenu jàmbur dañoo commencé gun bi <laughs> nee waxtu bi <laughs> li ngi jéggalu <laughs> yonent bi na sallallahu alayhi wa sallam garaaw maa ngi koy tënk yonent bi na sallallahu alayhi wa ku mën a denc yéen soxna na ko denc day tax sa bët doo am bàkkaar bi nga xam ni ëllëg dañ la koy mbugale te bët moom moo koy waral xam nga benn bindkat dafa bind bët mooy facteur bi gën a garaaw ci ci ci ci ay bàkkaar fa nasratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u bàkkaar kii sàcc bi dafa xool day observé kër gi muy sàcc bëccëg bi soog a dem boutique bu muy dajji da koy xool soog a dem kii njaaloo dafa xool ndaw si xemmem ko moom moo tax motax ku yàlla jël ay bëtam mu muñ ko ta yàlla tax ëlëk yomal xiyaama yonent bi neena yàlla neena na rus na taxawal tek say jëf diko pesé di ko wafas inamaa yuwaffas inamaa wafas sabirun ajrahum bi ghayri hisab ñi muñon natu yi len yàlla tegon directement aljina lañu jël bët facteur bu doy war la mu ne day tax sa bët doko tek rek bu ngoon jotee rek wala nga dem ci école bi ba ko tuwaaju rek xala bu jigéen bu romb nga tek ko ko xol et puis da lay indil wéx bët da ngay dégg olof naan diw dafa wéx bët moy do xam koy tànn gaawal nga tànn kenn nga dem man caa dimbanikoo moom tam mu dimbanikoo ci yow ndax yonent bi day wax ni ñaari woy dencante sallallahu alayhi wa sallam bu ñu àndee ñoom ñaar rek toog ku nekk xool moromam bëtu cofeel yàlla nga toog te xadara ba di leen xool bëtu yërmande yërmande yàlla ci jaam mooy raxma mooy baraka mooy effacer la ay ay ay bàkkaar yëkkatil la ay yiw moo ne day tax tamit sa yi doo njaaloo njaaloo mi nga xam ne tey du dara pour ñun du dara njaaloo mu tasaaroo moo tax tey déggi bari njaaloo mi nga xam ne tey dañ ko médiatiser njaaloo mi nga xam ne boo ko bëggee fa nga koy am ñëpp xam nañ ko léegi mu dànkaafu góor ñi ne nag su fekkee nag conditions yi réunirul amaguloo xaalis di nga soxla sa moroomu jigéen olof nee na bala nga naan naam danga fay nekk nee na ngay woor ba man na yastati fa alayhi bi soom fay nahu lahu wijaa soo ko mënul deel woor dina tax dina la gàllankoor ba shahwa bi ngay am jëmale ko ci jigéen boo xiifee dootoo am ndaw yi ñoo jàppale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb taxawu ko ñoom seen fo dañ daan fo yonent bi su musaana julli ba pare suba ibnu abbas nee na day tourné jàkkaarloo ak saxaaba yi buñ ñu defee seen baaqiyaatu saalihaat def seeni awraat ba pare ku nekk day nettali ayaamul jaahiliya ni mu ci nekkee woon ñu ne yonent bi da daan reetaan sallallahu alayhi wa sallam mais loolu folo dañ daan fo da jangale won na tamit na len dajale len ben xoto ñu fay nek di jàng li nga xamni mom moy mooy ram manam sanni tir ñu koy tuddati comme tay ñu jangale naka ngay naka ngay pistolet daf len doon wax nañ jang feey tay gis nañ yooyu dañ koy def léegi ay jeu ki dakk feey gore ak dakar def na ren ñaari sœur ñom ñoko ko yoy ay fola islam terewul fo mais ban fo motax laaj ak lahu ñom ñaar sax duñu benn motax yàlla bimu ñuy dankafu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan batu abas ñëw ñom ñetti façon laib lahu ak abas ñett yep bu nek dafa am lu muy représenter da laib ñu xale mo koy def abas ñu ne ndaw li ci toll mo koy def lahu magum jëm mu am bijaaw mo koy def laib moy fo fo ni ni nag fo mais fo bi gëna grave mooy foowe fowum jigéen nañ ma baal foowe fowum sexe fa kàddu yu déplacé fa yu doy waar tey da gis ni bu njëkk ba da nga daan am foo war a dem am koo àndal da ngeen di dem sañu leen sax am na yoo xam ne sañu leen ko mais tey xale yi ak ñu osé te sañ ñi ngay dégg ñu leen di tudd ci diine ñoom ñëpp ay ndaw lañu woon lan lay wax ne Aboubacar as-Siddiq passé wul woon 37 ans bi muy dugg ci diine Omar 27 ans la amoon ci temps yooyu Ousmane 34 ans la amoon Ali moom 10 ans la amoon bi muy dugg ci li nga xam ne moom mooy diine al mubashirina bil janna ñi nga xam ne yàlla daf leen a bégale aljanna ay ndaw la ñu woon Talha 15 ans la amoon Zubayru ibnu Awam 17 ans la amoon Saad ibnu Zeyd quinze ans la amoon Saad ibnu Abi Waqas mi ngi amoon 17 ans Abu Ubayda 27 ans ñi ngay dégg ñu leen di wax ci diine bu ñu ko temps bi mayoon koo dégg tey ñu tudd ko ci diine di ko kañ nga defee ne dafa toog ba am 50 ans ñu soog koo kañ bi muy nekk ndaw lu ci sóobu yàlla jàppale ko yàlla indiwuñu fii pour ñuy caaxaan ak di fo foo dañ koy organiser mun nga ànd ak sa waa kër ngeen dem plage ayul tey la samedi ànd ak sa waa kër ngeen dem plage ànd ak sa waa kër yóbbu leen ci ay place ñu dem xool visiter dem lu mel ni Gorée dem parc an yooyu aayul mais ñun xam nañ yéen sax bi ngeen lay sant waxtaan bi xam ngeen fo bu baax bu baaxul nag fay baax ci ndaw xam nañ ko li bon ci ndaw xam nañ ko ndaw li sax da koy def pare xam ne lii baaxul tey xale yi góor yi am na ñoo xam ne seen fa mooy lan dajaloo jënd seen yàmbaa dem toog di tux ñoom ci loolu la ñuy retrouver seen bopp tey xale bu jigéen bi mi ngi xool nan lay naxee xale bu góor bi fan lay jaar ba mën a am xale bu góor bi façon naxante boobu pour ñoom loolu fa la nga ànd xale bu góor bi mu luyee benn appartement pour benn journée nga nekk fa ba ngoon nga ñëw ne fegum sa yaay du xam dara ci li nga nekkoon fekk toj nga dëkk bi ngi leen di jéggalu waxtu bi ñaan borom bi subhanahu wa taala li ci jub yàlla nañ ko jëriñoo ñun ñëpp ku ci nekk safaan man la mu ñëw ci man bañ a ngeen bañ ci am dara yéen ñu ngi nuyu sunu mag ñi nga xam ne teew na fi nekk sunu amira su koy faal bokk ci ñi nga xam ne def na ci man formation macha allah ak sunu sœur bi mu àndal ñu leen di ziar bu baax di leen dalal jàmm di leen wax ni nii la mais ay étape la dafa jot ci ndaw yi ngeen dajaloo taxaw di dem ci presse bi di génnee li ngeen war a wax ngeen koy wax li ngeen war a def ngeen koy def àdduna bi Sénégal bi surtout fi ñu nekk bu leen yaakaar ne ay Ablaye Wade bi nga xam chaque jour ñu tudd ko ñaar fukki yoon du fi doxal dara gis nañ ba fi nekkee li fi def keneen ak keneen li koy doxal mooy ndaw lu gëm diineem di dund li nga xam ne moom mooy islaam te du ci ragal lawmata laa'im aqulu qawli haza wastaghfirullaha li wa lakum salaamu aleykum wa rahmatullahi ginnaaw bi nga seetaanee vidéo ba pare fekk abonné goon na nga abonné te bës touche cloche bi ndax bu ñu dugalee nga mën di jot notification yi